histoire de. les quatre appuis loolu réglement la. règlement moo définir les différentes formes de chute. est-ce qu'il n'est pas temps très bien xam nga réglement boobu day évoluer dafa dynamique. Euh, fii la tàmbali woon tey ñu nekk fii suba on peut aller vers autre chose tey nit ñaa ngi jàmbat quatre appuis les composante de la vie comme li ma wax le CNG du inventé dara le CNG day discuter avec ses composante day waxtaan ak ses composantes ñu xool li gën ñu def li li li nga xam ni euh, ça pousse la réflexion ñu continuer réflexion tey soulever nañ débat quatre appuis c'est sûr à force ñu koy soulever au cours d'une rencontre peut-être les composante finiront par dire effectivement euh, mën nañ am lu gën quatre appuis comme mën nañ ni non pour le moment on peut maintenir les quatre quatre appuis donc mu ngi à l'étape réflexion poussons la réflexion et puis xay na. vous poussez la réflexion. non les composants. on définit mais on définit sur la base d'une concertation on se concerte dañuy waxtaan ak acteurs yi ñëpp ñëw ku nekk jooy sa jooy euh, mbër bi ni lii mooy sama problème ménager bi ni lii mooy sama problème. amateur bi nii lii mooy sama problème promoteur bi ni lii mooy sama problème ñu segg xool problème yooyu yëpp fan lañ daje. Mm-hmm. ñu jël la meilleure décision.